bu amee askan wu mar bay egg ca lool du wenn askan wa nekkee ca nekkee ci diwaan bu Touba askan wa fa nekkee nag daal jooytu ñàkkum ndox ki ñuy dund ji ndax ay weer ak lu teg ngi nii toq ndox daal di siit ci seen robinet li ni tax ni ki démb ci ngoon ñu daal di gontoon janoog taskatu xibaar yi daal di leen yéggee seen i jafe-jafe mu ñàkkum ndox gu métti gi ñu dund si jamono jilee buñ sukkandikoo ci seen i kàddu xanaa sonn rek ndax ñun 4 heures du matin daanaka ci biti la ñuy fanaan dañuy toog robinet bi du xelli ñu daal dem ci kër gi jéggi tali bi di wër ànd ak suñu xale yi wër wër ba sonn duñ gisum ndox léegi léegi soo yeewoo 4 heures boo doon gisum ndox sax mu tane waaye duñ ko gis dañuy wër ba bëgg a dee mënatuñoo sangu mënatuñoo raxas suñuy duus mënatuñoo def dara ndax ndax ñàkkum ndox liggéey nag waxatuma ko moom da xam nga ne jigéen ñi moom foo leen gis xam nga ne ñu ngi ci yëngu bi ñu ngi ñu ngi dem ci marché yi ñu ngi wut li ñuy liggéeyee léegi boo amatum ndox nooy liggéeyee wax dëgg yàlla am sonn nan daal moom. yan jamono ngeen euh, commencé di gis euh, ne ndox mi ngi commencé di manqué fii ci seen quartier bi. ñun de màggal Touba màggal Touba bu daaw ba nëgë ni bu xellee ci guddi gi ay deux heures nga jóg mu commencé xelli ba yàgg mu tëj léegi nag moon far benn robinet xellee tut far. léegi lan ngeen bëgg nag fi mu doon yéen lan ngeen bëgg. xanaa nag ku ñu dimbale ci ndox mi suñu robinet yi xel ndox ndox. ndox ah, ndox lañ bëgg waaw wala wala ndox daal moom moom wax dëgg yàlla mooy suñu mooy suñu jàmbat daal waaw ñu dimbale ñu ci ndox mi xanaa ànd ak gone yi rek ub kër gi ak xale yi ndaw yu tuuti su ma demee ba mu guddi ma waaxu waa desi ci kër gi ñëw xool si leen biig def nañu ko ba daanaka ay minuit sa àll bi la leen fekk mënatumaa dem mënatumaa ñëw ma jaaxle damaa mujj génn taxaw ci buntu kër bi ñoom it ñu am xel gis oto bu jëm si fii doon fa xama sotti ndoxuma ñu daal di koy topp bi ñëwee sànni bi yoon wi fat ko ak ndox toppewu leen fa birang bu ndaw bii lañ fa duyee indi taajal ma ko ci laa jàpp ci laa jàpp euh, gée ci laa jàpp timis ci laa jàpp suba ah. geneen ndox tabbiwu fa lii nga gis ni léegi laa ko duyi woon bu yàgg ñoom dañoo demoon bu yàgg laa fa jógee woon dem ci robinet bi dañoo mujj may ma barke Sëñ Tuubaa nu nekk nag ci mitit woo xam ne kenn mun la koo wax ah, boole ko nag ak yor njaboot gu ndaw am na ñoo xam ne euh, lay lay dem ci seen ñoo koy dawal seen bopp mu dugg ci seen biir kër ñu bokkoo boole dem di rooti dem di lijjanti ji leneen xam nga loolu metti na nun de noonu waa Touba Baxdaad gi képp ku nu dimbali yàlla dina dimbali sëñ Touba dina borom daaru dina dimbali barke Sidna Mohamed sonn nanu sunu njaboot gi sonn nañ sama yére yaa ngi nii fóotunu defunu leen nii la nu mel ki nu gis doon xam ne nuy teg sama kër nga ne boo fa duggantey da ngay waaru ki sa borom dimbali leen ngir yàlla gi mi sëriñ Touba Mbacke jooy na lor lor sonn nanu dimbale leen nu rek. Ah, metti waaye ndox mi moom képp ku ne ci son bi yaa ngi koy yëg di ko yëg bu baax a baax a baax cam nekk nag lu yàgg. ndax tey bu ñu demee tey ba bërigam ndox tey ñu koy jaayee fi ay 700 francs ah loolu lu lu seer lu ñuy doyee waar kenn mësu koo gis te ku ne xam ne ndox dafa bokk ci doomu aadama benn doomu aad doomu aadama ndox dafa bokk ci li koy dundal gis nga ñun ñii di wax ak yow di góor nii ñun dañuy dañoo am yërmande ci jigéen ñi parce que am na ci ñoo xam ne euh, ñi ngi wax quatre sax mais quatre sax boo ko jugee doo am ndox mm-hmm. waaw am na ci ñoo xam trois heures la ñuy jug ci jigéen waxuma la waxuma la ñàkk am ndox gi rek mais loolu ñàkk am sécurité gi rek moo ko raw ndax yow lu ne mën na laa fekk ci biti lu ne mën na laa fekk ci yoon wi kan nag lu ni mel daanaka mën naa leen ñi nga xam ne yàlla dogal ne am nan kàddu ca bu nu waxee maanaam seen kàddu dem ca kaw nanu ci jàpp ngir yàlla ak yenente bi ak sëriñ Touba mi nga xam ne moo ñu boole ci dëkk bii nanu am yërmande dimbali ñu ci ndox mi ndax ndoxu ndoxum Touba dafa yàgg di manqué ndaxte euh, fii nga xam ne muy bax daat ak gede gii nga xam ne ñun fii dëkk nga xam ne benn frontière la maanaam seen manque ndox dafa yàgg dafa yàgg lool ndax forage bi fi nekk nga xam ni moo nekk fii ci yoonu Baxdaad wi euh, ci ci yoonu Baxdaad wi jëm jëm jëm Guédé ba mu paane dafa yàgg lool ca kenn waxu ci kilifa yi nga xam ne nag yàlla dogal na ni ñoom ñoo ñu jiite Euh, ñu jël sunu lépp jox leen ko nan ci jàpp bu baax a baax a baax ca xam ne ñoom la ñu yaakaar adduna ak àllaaxira ci ñoom buñ buñ ci jàppee rek lépp dana sotti waaw kan na ci ñëpp jàpp waaw maanaam luñ ci mën nañ ko def ndax man mii nga gis nii am maçon laa maa ngi nii di soog a wàcc nii te wér na ni ma bu ma eggee kër ga du ma fa fekk ndoxam sangu man maay man maay ko dem xëyaat ca ciment ba ba pare wëlbatiku dem jëlaat sa bureau dem di ko jaayante ji pour am ndox loolu lu metti la waaw jërëjëf yow mit maa la loo ci mën a jàpp na nga jàpp te seen site bii ñu ngi leen di ñaanal yàlla ko yàlla jëmale kanam yàlla ko yàlla jëmale kanam parce que yéen a ngi def liggéey ba am solo ndax lii ngeen di def nii bu ko ñëpp doon def léegi lépp informa information jàll lépp lépp lépp mën a son manqué ndox mi moom jaaxal ñu lool noo ko foo ko natt rek weesu na ko ndax xam nga ne ay jigéen di jóg ay 2 heures du matin 3 heures du matin di wërum ndox doo ko am boo jëndee bi doongu ndox 300 250 boo ko indee ci kër gi bu say ñu nekkee ko màggalu Touba ba nëgëni ñuy ñaan yàlla nag kuñ ci dimbale rek ak sëriñ si nekk ci suñu kanam jàppale ñu ba ndox mi ñëwaat ci ñu ndax sonn nañu trop da ngay daw di liggéey loo lekk bëgg ko boole wërum ndox te ku ne xam na ne jamono ji neexul te ñu ngi jub tëbaski yaakaaruñu dara suñu doole lañ yaakaar te gisoo dara te màggal ngi ñëw sonn nañ trop coono bi moom foo ko natt rek weesu na ko ku ñu dimbale rek la ñuy ñaan te yàlla rek tax li ni mel nag tax ñu daal di artu autorité ñu gën leen a taxaw bala ñu yegg ci màggal Touba ndax ku nekk xam na ne màggal Touba ñàkkum ndox gi daanaka dafi yomb lool ñu bëgg nag bala ñu koy yegg ñu daal di leen taxaw ci ñàkkum ndox gi ñu dund si jamono jilee ndax métti na ba jéggi dayoo ndax si jamono yi ñuy waajal tabaski indi ndox ñu bëgg nag bala ñu yegg ci grand événement màggal Touba bi ñu daal leen taxaw ci ñàkkum ndox bi lee ndax mu gën a métti lool te yàgg lool ñoom nag bi ñu fi see ndox la ñu bëgg lañ lay teeroo Touba Mamadou Ba Morkan Info 7 TV